itam njëgum dund gi nekk na lu ëlëm xel yi jamono jile gouvernement bi jànkoonteek yokku njëg yi yokku tem courant bi juróom coow am na nag ni ay ayubés sax ba tax askan wi di kaasa waaye comprendre guñ ba nëgën ni lan moo waral yokkute googee ñi nga xam ni ñoom lañ dénk secteur boobee ñu ngi woy di expliquer waaye mu mel nii ba tey mënuñoo dalal xel waskan wi dañuy dem sax bay gëna a lëndëmal xel yi laata coowub bi bile askan wi jànkonte nañ ak ay jafe-jafe yu fasantikoo amoon ginnaaw mbasum Covid 19 tax koom-koom bi daal di taxaw loolee nag nar naa wëy ba njeexitaluwaat mi lii di transport bi ciment fer location bi ceeb diwlin suukar xorom ak ndox ñoom itam di woy di yokk tax gouvernement bi amuk njaaxle ndax njëgu dund gi askan wi àttanatuñ ko benn yoon gouvernement bi mu ngi jéem ci kéem ma ngir fexe ba njëkki du yokk waaye mu mel ni mënul fexe ba am loolee koom-koomu Sénégal di woy di tagga témbe loolee rax ci dolli bor yi nga xam ni am nañ ko secteur yu ci mel ni njàng meek njàngale mi wérgu yaram ak mbay mi ñoom daanaka suux nañ ba noppi la cay tukkee daanaka askan wi mënuñ cee jot benn yoon la ko waral nag mooy seeraayug intrant yi ak njëgu lañ koy defaree li gouvernement bi génne loxoom ci secteur yooyee jox ko opérateur privé nationaux yi nga xam ni seen xarañteef des na wuuteek multinationales yi nga xam ni ñoo fi ne gën naa compliquer mbir moomee tax nañ njeexital yi say tukkee dina gën di doy waar koom-koom bi ci àdduna wëngal këpp dafa am ay loi yoo xam ni noone lay doxee tax ba bu jafe-jafe amee daanaka ñëpp a ko yëg